bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki taalib yi bokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu nuyu bi gën a rafet tey tàmbale sunuy kàddu kàddu yu cant ak kàddu yu ngërëm jëm ci sunu kilifa di sunu sëriñ ay Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xafidahullahu wa raahu di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér ba lépp lu mu yéenee liggéeyal maamam ja liggéeyal ko liggéey yéen ko liggéeyal waaye juróomi ya yéen ko liggéeyal yoon yi ak diini islam mu def ko na mu gën a rafete naa mbégte ne lool nag ci xéewal guree gii nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha andil noonu andil nanu ko muy daara ju mag ji nga xam ni bokkoon na ci mébéti ak Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu wa nafaana bi yéenem yéenem ci Touba la ci woon mooy néegub yàlla bi la ca toppoon mooy daara joo xam ni képp ko képp koo xam ni yitteew nga xam-xam nga mën ko fa am yaakaar naa bokkoon na ci li mu batale woon a Cheikh Sëñ Mbacke Bousso kon nag <clears throat> sunu boroom baaxee na Cheikh Mamadou Mountakha ba jaarale ko ci loxoom ndax xam-xam day lu mënta ñàkk cib jullit nga xam sunu borom tabaaraka ko taala eh, bëgg nu jaamu ko rek moo tax mu bindunu maa xalatul jinna wal insa illaa liya'budun te jaamu sunu borom nag balaa sell faw xam-xam jiitu faw xam-xam jiitu te sunu borom tabaaraka wa taala ay euh, kàddu yi mu njëkk a wax ci alquranul karim ci téeram bu tedd bi mooy iqra bismi rabbika allasi xalaq jàngale la njëkk a digle dellu wax ni faalam annahu laa ilaha illa hu wastaghfir li danbika walladi baasa fi lyumina rasulun yatlu alayhim wa ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal xikma ah sunu sëriñ sunu yaakaar cheikhul xadim it ku ne xam na cër bu rëy bi mu joxoon xam-xam ak bëgg gi mu bëggoon xam-xam ci dëkk mu tëdd bii xam ne waxal na ko ay yoon yoon wa jaalhu daban maskana taallumi wa maskana maskan maskanal irshadi wa taalimi ñaan sunu borom mu def dëkk bii dëkk boo xam ne bu ñuy sàkkoo xam-xam la te di ko fi amee daa soññe bu mettit moom sëñ bi ci bëgg ndaw ñi di di sàkku xam-xam bu baax a baax a baax dafa xam ne ne yaa ayuha subaanu in xiftum xajal faqaddimu taalluman ala al amal yéen ndaw ñi bu fekk bu ngeen ragalee kersa na ngeen jiital xam soog caa topp soog tef jëf wax ne waalam bi anna al ilma wal amali huma wasilata wasilata saadata saadata ajal loolu lépp sëñ bi day soññee ci bëgg ñu jiital xam-xam njëkk ñuy jaamu yàlla njëkk ñuy jëf te wax ne al ilmu wal amalu jawharaani li xayri daarayni yajlubaani Cheikhul Xadim nee na xam-xam sàkk ko ba am ko di ko jëfi yaari gànjar lañu yoo xam ne li muy bijjal boroom mooy teraangi àdduna ak teraangi àllaaxira kon loolu bokk na ci li nga xam ni nuy sant a Cheikh Mouhamadul Mountakha di ci soññ nag suñu bopp di ci soññ mboolem njaboot gi di soññ mboolem bokki taalibe itam nga xam ni jàng moom lu mënta ñàkk la sëñ bi ci téere yi mu njëkk a def bokk na ci ci tasawur zixaar yaa ayyuha sub yaa yaa ayyuha subyaanu laa tastaxilu anil huda wa bil ulumi staxilu ndaw ñi bu leen soxloo lenn lu dul ak jub ak te ngeen dem sàkku ci xam-xam fastaxilu bil xifdi wa tilaawa wajtanibu majalis a na ngeen sakku ci xam-xam alquranul karim te di ko jàng tey teet jataay yi nga xam ne du jataay yu am solo yi kon loolu noo ngi koy fàttali suñu bopp bu baax a baax ñun ñëpp ñu fas yéenee taxaw dal na wax ne faqadima al ilma ala ala amal ida ida aradta an tafuusa bil amal lépp loo looy di jëf rek na nga ci jiital bala ngaa jëf maa nga jaamu yàlla na nga jiital xam-xam bu fekkee da nga bëgg ak tonu ak ak tandu loolu moo waraloon ci jamonoom kàngam yi nga xam ne tànnoon na leen ñuy jàngale eh, bu dee njàngum alxuraanul karim sëñ Ndaama Abdourahman Lo moom la ko féetale woon bu dee njàngum xam-xam yi ba ca xam-xam yi gën a kawe ya ah, cheikh sëñ Mbacke Bousso ak maam Thierno Ibrahima ñoom la ko tegoon ci seen loxo nga xam ne li ëpp ci ak njabootam ak rawatina njabootam gu mag gi ak seex yu mag yi ñoo ñoo leen jàngal ba la nekk ci ñoom nekk ca te ji ni ko sëñ bi tëre nga xam ne bokk na ci liñ ci njëkko bi mooy njàngoom alxuraanul karim ndax ndaw ñi faw alxuraan moo war a jiitu ci ñoom yàlla def na ñu def ko Euh, doxalin programme bu mucc ayib boo xam ne gone gi mën naa mokkal alxuraanul karim jàng njàngum majaalisam bu àggal te leneen la mu war a jàng ci la koy jàppale ci wàllu àdduna ak wàllu teraanga mu mën ko am te njàngum alxuraan moomu sëñ bi def ci soññee bu baax a baax moom xaadimu rasul ndax wax bokk na ci ay waxam fa man araada al qurba min mawlaahu fal yaqra il qur'ana laa yansahu nee na képp koo xam ne dangaa bëgg a jigi sunu borom tabaraka wa taala na nga jàng alxuraanu karim te bu ko bàyyi dellu wax ne qultu fa may yurid ridar rahmani fal yusbitan tadabbural qur'ani képp koo xam ni dangaa bëgg ngërëmal yàlla seexul xadim nee na na nga dem sax ci di jàng alxuraanu karim dellu it joxe ci ndigal loo xam ne nun ñëpp ndigal yi danoo tënk muy nun ñi ko yaakaar ñëpp ndax wax ne kullu muridin bi yeluudu fal yu dim tilaawatan li xari dikkirin xatul sim képp koo xam ne danga aju ci man jox naa leen ndigal na nga sax ci di jàng téere sunu borom bi tabaraka wa taala te fekk na sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ci ngëneel yoo xam ne jaar naa sax ci di jàng alquranul karim ndax yonent bi wax na xayrukum man taallama alqurana wa allama ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran wal bëtiku di ko jàngale kon nag xéewal gi nu a Cheikh Mouhamadou Mountakha andil te yàlla def na it mu teg ko ci loxol sunu mbokk di sunu rakk di sunu doomi di jaay ah, di Cheikh Ahmadul Badawiyu di ku farlu lool fa tabarakallahu ci jàng ak jàngale te moom la sëñ bi jiital ci daara ji moom ñi nga xam ne ñoom lu ko seqal ñëpp itam yàlla def na itam def nañ ko programme boo xam ne programme bu mucc ayib la ndax lépp lu waay soxlaa jàng ngir xam sa diine xam loxal arabiya ak yeneen xeetu xam-xam yi lépp fàggu nañ ko ci biir programme bi ba ci wàllu lu jëm ci wàllu médecine ak yeneen i ak yeneen i yeneen i fundun kon nag loolu sant ci sëñ bi ak gërëm ko ak it nu fas yéene laxasaayu nun ñëpp képp mu di tàmbale ci bokk yi di seex yi ak mboolem taalib ak bépp jullit boo xam ne bëgg nga euh, sàkkul sa njaboot xam-xam te xam-xam kat mënta ñàkk ni ma ko waxee ci njëlbéen gi rek bala ngaa mën a jaamu yàlla faaw nga jàng te Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <coughs> wax na ni ab jullit bu faatoo aw yiwam yépp dagg na ba mu des yetti yëf ilmun yantafiu bi ngeen <coughs> jégal ma de <coughs> bi aw amalun saalix aw waladun yad'u la nit bu faatoo aw bi moom lépp lépp dagg na ba mu des yëf xam-xam bu mu amoon ñu di ko jariñoo gannaawam moo xam daara yu mu tefoon la moo xam téere yu mu bind bàyyi fi la moo xam ñu mu xamal la la ko ñaareel mooy amalun saalix lu mel ni jëf jii ak Cheikh Mamadou Mountakha Diouf tabax ay jàngukaay wala tabax ay hôpitaux yu doomu aadama di fajoo wala gas ay teen wala tabax i jàkk wala tabax i juma la ca nag mooy awalun yad'u la doom joo xam ne boo faatoo mu di la te doom joojee boo ko xamalul diine xamaloo ko alquran yaroo ko yarub diine jàngaloo ko xam-xam ragal naa ni dana tal leen lu dul di la ñaanal kon nag noo ngi ci soññ sunu bopp gannaaw bu ñu sant sëñ bi gërëm ko nañ ci takku ñun ñëpp ñëpp xam ne te euh, waajur wu ne da am ay àq si diggante ak sa njaboot te la ci jiitu nag mooy jàngal ko alxuraanul karim yaar ko yarub diine jàngal ko xam-xam soog koo jàngal liggéey kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax noo ngi sant sëñ bi bu baax di sant du Ahmadou Badawi mi nga xam ne ci loxoom la ko teg. ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo njàng mi ak ak ñi koy taxaw ak ñi koy saytu ñaan suñu woon def na ndimbal ak tawfeex ba sëñ Mouhamadul Mountakha yàgg fi suñu kanam lool ba lépp lu mu yéene liggéeyal Cheikhul Khadim maamam jëm def ko na mu a rafete ndax bokk na si li sëñ bi doon ñaan sët yu mel ni ak Cheikh Mouhamadul Mountakha sët yoo xam ne dañoo yeesal euh, yoon wi nga xam ni moom la Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xàlloon te ku ne xam na ne ak Cheikh Mouhamadul taxa yoon woowu rek ca la nekk amul benn bëgg-bëgg bu dul lëggeel Seexul Xadim ci njaboot gi te su ma nee njaboot gi mooy bokk yi ci la ñu bokk waaye taalibe bokki pas-pas yépp ci la ñu bokk amul bëgg-bëgg bu dul lëggeel diine islaam amul bëgg-bëgg bu dul taxawu mbindeefi yàlla yi rawatina jullit yi kon nag noonu maas yi ñaanal ko sunu borom yàggal ko sa may ku wér bu baax a baax noo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.